ñi ñu jàpp nun dañ ne woon duñu noppalu lu dul génne nañ leen parce que ni ñu leen tegee loxo du yoon am na luñ ci waroon def ci génn nit ñi ñu mobiliser wu ñu jàmmarloog ñoom waaye kilifa diine rawatina xalifa bu tedd bi di sëñ Muntaxa daf cee xool gis lii responsabilité ci réew mi li fi xew naqari ko lool lool lool ba nelawatul li ma wax dama koo xam mu ne nag dinaa ci dox jéego ba lii bu mu amati mu defal ñu teranga boo xam ne ak euh, jox ñu cër goo xam ne mënuñu koo fay ndax mënoon nañu woo ñu fekki ko Touba waaye dafa yebal ay délégation ne leen dem leen seetal ma ñi toog waxtaan ak ñoom bi ñu ñëwee ñu waxtaan mu nañu li fi xew naqari na te bëggatuma mu am li ma bëgg mooy ba léegi nag kilifa gi ci diplomatie am ak ci weg nit ba léegi neewuñu dama bëgg ngeen bàyyi seen manifestation bi benn yoon waxu ko waaye nit yaa am dégg-dégg lam ñaan mooy dama bëgg ngeen may ma dal waaye nag leen naqar yépp ngeen tënk ko teg ko sama loxo ma def ci li mu war a def bu dee def naa ko nag as diir euh, amuñu ci résultat bi ñu bëgg bu boobaa man sama jaan wàcc na ñu nangul ko loolu dégg am dégg-dégg ñun ñoo jël suñu responsabilité ne manifestation bi ñu waroon def ci ëllëg sa teggi nañ ko loolu nangul nañ ko kilifa gi daal di jël suñuy revendication def ko ci dix poñ ci fukki poñ teg ko ci loxoom ci ëllëg sa def na ca lim ci war a def la ca des nag am nañu yaakaar ni ci semaine bii ñu nekk nii sax en tout cas ci lu gàtt am nañ yaakaar ni dinañ ci gis résultat te premier résultat bi mooy ñooñu ñu teg loxo te tegul yoon dinañ leen wàcc am naa ci yaakaar ñu dellu seen kër dellu seen activité jëlaat seen liberté